mbokk yi ñuy teewlu si Jàllale TV dalee nag jàmm dañuy dox addu jëmale ci Adama fay mi ñu placé en garde à vue ni ki démb bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne ni libération daat na ci ñëw frère Marième fay Sall bi dafa daal di empoché lu toll ci deux cent soixante quinze millions francs CFA loolee yépp ci ay terrain yoo xamante ni dafa nekk en toc maanaam ay terrain yu foo la section de recherche jëmmal liggéey gi ni mel tënku ci xibaar yi ba tey moom aadama fay dafa jaayoon ay terrain ay particulier te loolee yépp joxu leen benn papier bu tukkee ci wàll wi dossier bi ni mel nag ñu bloqué woon ko lu yàgg jamono yi ñu daal di koy génneewaat ci tiroir gi tënku ci xibaar yi ba tey moom moomii Adama Faye jotoon na remboursé delloo benn pàcc ci xaalis bi nga xam ne daf ko escroqué woon ndax terrain yooyu naam moomu ko wala sax ay terrain yu foo la jamono yi nag ñu koy toppee lu jëm ci wàllub délinquance foncière comme mbirub Dora Gaye gi section de recherche yor bi les dossiers mi ngi ci ay loxoy yoon ba saa si dañuy woyal xibaar yi ak supposé conférence bu fi maître Branco waroon a amal fii ci Ndakaaru mu doon annonce boo xamante ne ni moom maître Branco moo ko daal di def xam ne ni na dellu si fii ci Ndakaaru niki tey ci jeudi bi foofee ca université Cheikh Anta Diop avocat bi xam faculté des sciences juridiques et politiques ngir animé benn conférence ca UCAD 2 tey ci 16h ñu jàpp na loolee mooy doon gu njëkk ginnaaw Juan Branco ñëw ci Ndakaaru depuis ba parti Pastef daal di jël pouvoir bi mu doonoon cause boo xamante ni ni défendre na ko bu baax a baax waaye nag mu mel ni bile xibaar waa UCAD dañ ko daal di weddi ñoom ñi daal di biral benn communiqué xamle nañu nag planifié wuñu benn conférence boo xamante ni ni moom avocat bi Branco moo ko war a animé daal di yëkkati ay interrogation yu bare ne nag université Cheikh Anta Diop si wala ko communiqué ca loolee mi ngi ca daal di tënk ne di ci indi ay leeral ci bile situation weddina nag planification jëm ci bile conférence ñoom nag ñuy xamle ni lu ñu benn autorisation ñeel bile événement ñu fas yéene koo amal foofee ca Cheikh Anta Diop ca boobule communiqué ñu ngi ca tënk ne UCAD mu ngi souligner amul benn autorisation boo xamante ne ni ñeel na conférence publique ci bile date maanaam ni ki tey ci jeudi bi ak bërëb bi nga xamante ne ni xamle nañ ni foofu lay amee libération nag mi ngi intervenir ginnaaw ba avocat bu Ousmane Sonko bi daal di annoncé retouram fii ci Dakar niki tey ci jeudi bi di xamle ni prévoir nañ taxawal benn conférence te foofee ca UCAD la ko fa yéene amal invitation gi ni mel tukkee ci ay étudiants yu fac droit ñu convier ko nag ngir mu daal di animer ca UCAD 2 niki tey ci 16h saa si nag UCAD daal dina weddi li ni mel ne benn autorisation jébbalu ko ci wàll wi wéyal xibaar yi addu jëmale ci Ousmane Sonko mi jànkonteel jamono yi ay refus tukkee ci assemblée nationale Sall ci fàttali nag premier ministre Ousmane Sonko dafa laajte woon parlement yi ñetti député ngir ñu nekk membre de la commission bu ad hoc ngir nag ay contrôle ak ay vérification yoo xam ne namm nañ ko jëmmal ci ay tiitre ak occupation yu ñeel ancienne ak nouvelle dépendance bu domaine public maritime fii ci Ndakaaru waaye nag bureau bu assemblée nationale dafa bañ wuyu ci li bu ñu sukkandikoo ci suñuy ñoñ yi ñëwaat ci bile xibaar Amadou maam Diop ak ay ñoñam dañoo daal di évoquer séparation des participation ci yile liggéey nekkul lu important lool tax nag ba bureau bu assemblée bu constitution ngir justifier wala indi ay firndeel ci lu ñu daal di bañ bi la invitation ñeel ay liggéey yu commission bu ad hoc ñuy fësal ba tey ni seen souci mi ngi nekk ci assemblée nationale dafa war a amal ab doxalin bu ànd ak égalité ak transparence waaye nag représentation nationale bi fësal na boppam ci gunge bi initiative naka noonu tënku ak ànd ci bépp décision boo xam ne autorité yu bees yi daat nañ ko jël te beneen bor ba nag Guy Marius Sagna ci jëm boppam mi ngi joxañ baaraamu tuuma di accuser bureau bu assemblée ne dafa bëgg saboter yu nouvelle autorité yi fas yéene tëral moom sax gën naa xuus si li ni daal di indi ay firndeel tëral article 165 bu code électoral xam le ni nag gouvernement bi mën na choisir ñetti député ngir ñu siéger ci biir commission bu ad hoc moo di bureau bu assemblée nationale maam Amadou ak ay ñoñam bañ nañ ba tëdd si suuf ne duñu wuyu ci invitation bi Ousmane Sonko daat leen jébbal ngir nag ñu daal di tënku ond ci liggéey gi ñeel commission ad hoc ca loolee nag ñu indi ci seen firndeel bi le mbir nag Ousmane Sonko waxagu ci ba tey waaye soutien bi tukkee na nag ci représentation nationale bi ci xibaar yi ba tey boobaak léegi douanier yi nag ñu ngi jëmmal liggéey bu mucc ayib ñeel daaneel lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu trafic de drogue ca loolee nag ñu nemmeeku saisi bu bëri bu ñu def ci drogue gi général yi mi ngi biiral benn message jébbal ko dealer yi ci li ni mel nag mi ngi prévenir bépp trafiquant de drogue ci taxawaay gi nga xamante ne ni douane bu Sénégal daal dina ko am ci liggéey yu mu nama tëral nee na nag jamono yi douane sénégalaise bi mi ngi surveiller lépp lu jëm ci wàll wi ci fan yi ñu génn anam gi ñu tegee loxo drogue gu bari fii ci mim réew dafay fësal volonté gi nekk ci trafiquant yi ngir ñu def réewu Sénégal benn plateforme de crime organisé douanier yi nag nekk en relation ak force de sécurité yi pexe ngir surveiller li ni mel waaye nag daal di contrecarrer maanaam fexe ba seen bépp pexe du jib ca loolee dinañ def seen kéem kàttan ngir fësal ci bien-être askanu Sénégal ñoom ñi nga xamante ne ni li ni mel mën na leen a affecté waaye tam mën affecte doxalinu réew mi moom directeur général de douanes docteur Mbaye Ndiaye mi ngi xamle ni nag li ni mel ñoom ñu ngi ciy taxaw temm nekk vigie maanaam di surveiller li ni mel te dinañ fexe ba bépp pexe trafiquant yi du cocaïne lépp di ay drogue 30 kilogrammes yi jotoon a teg loxo mi ngi xewee diggante Kër Ayib 33 kilogrammes yi foofee ca Ngulul jege lool Gandiaye ca beneen bor office central bu réflexion du trafic illicite des stupéfiants ñoom it daal dinañ wëyal liggéey bu mucc ayib ci wàll wi semaine yële ñu génn ay opération yoo xamante ne ni jot nañ koo def te loole yi tamit mi ngi xewee Kër Ayib ci Petite Côte bi tamit bàyyiwuñu ko benn yoon ak Ngor virage loolee sax tax ñu daal di yëngatu ci wàllu trafic de drogue message bi ni mel le directeur général des douanes daal di lancé ci wàllu wi taxaw nañ temm ngir surveiller bépp trafiquant de drogue jële fi seen liggéey yi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi koy wëyal lépp loo xamante ne ni seeni pexe la ñoom douanier yi dinañ def seen kem kàttan ba daal di koy daaneel wëyal xibaar yi Cheikh mi Midjik daal di convoqué ni ki tey moom nag dina wuyu ci plainte boo xamante ne ni Thérèse Faye moo ko daal di déposé ci ndoddam di fàttali nag moom Cheikh Ndiaye amoon na ay kàddu yoo xamante ne jota siiw lool ne Thérèse Faye bokk na ci ñoo xamante ni nii ay gu dul jeex lañ gàllool loole lépp ñu ngi ko amee ci nguuru Macky Sall gi ci anam yoo xamante ni nii tey na xel lool te lu jiitu loolu moom Thérèse Faye situation am nee woon na lool laata moo daal di dugg ci nguuru ki sàll gi kon nag moom Cheikh Bara Ndiaye dina tontu ci li ni mel niki tey ginnaaw convocation bi ko dik daal di jébbal dañuy jeexal xibaar yi ak plainte bi ay Diop Fall daal di déposé woon teg ko ci ndodd directeur informatique bu en bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Aïssatou Diop Fall mi ngi doon joytu li jëm ci wàllu wàllub yi moom nag ci vidéo boo xam ne mi ngi doon àddu jëmale ci wàllu wi vidéo bi sax jotoon naa siiw bu baax ci réseaux sociaux yi moo di journaliste bi mi ngi xam ne ni directeur informatique bu TFM daf ko sàccoon détourné lu toll ci ay millions de francs fa ci compte bancaire te loolee moom xamu ca dara te jamono joojee sax moom stagiaire la woon foofee ca groupe Futur Média taxoon nag Aïssatou Diop Fall mu daal di koy porter plainte teg loxo monsieur Faye jot ko placé en garde à waaye jamono yi tënkuwee ci xibaar yi suñu ñooñ daal di siy dellu siwaat bu baax a baax moo di nag kookee dafa daal di bénéficier wu li ñu duppee médiation pénale mbir mi ni ñu daal di koy régler à l'amiable mbokk yi ñuy ci si Jàllale TV fii la ñuy taxaw ak yéen jaajëfal leen bu baax si teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba si cloche de notification bi ngir dara bañ leen a rëcc ci suñuy programme